Sia Assurance Gambrendi et la Beauty Malaysia Yemo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li El Hadj Assane Gueye mbiri Pape Alé Niang journaliste d'investigation source a gis ne procureur contre ñëpp la jamono yu kap di mbootaay bi ëmb mbooleem association de presse yi ci Sénégal di sàkku ñu bàyyi ko moom Pape Alé Niang mu gën a gaawe ONG 3D it na noonu ak ku ci mel ni soxna aminat a Touré ak Ousmane Sonko yéene kaay bi ne moom procureur génne na benn bataaxal bu mu tuddul sax benn yoon turu Pape Alé Niang waaye di ca dankaafu ñi xewal fan yi mu ne di dal ci kaw kuréeli takk der yi ak kaaraange gi ci réew mi te mu ngi cay xamle ni daan ko faj ak lu mu laaj enquête yéenekaay ne presse bi ñoom benn dank lañ def ci weti Pape Alé Niang ngir ak njàppale waa CAP di mbootaayuk association taskati xibaar yi sàkku ñu bàyyi ko ci di fàttali état bi la ko war ci wàcco constitution bi rawatina ci article huit ak yi garantie yelleefu jot yi xibaar yu bari te wuute le quotidien gis ne procureur ma nga yokk moom ci xar karaw jàppe kàddu yi Pape yi ay cong yoo xamante ni wéeruwul fenn la yuñ dul nangu benn yoon yéenekaay bi ci boole wàllu yoon ba tey waaye libération bi xëy bi yoon indil ñu ay leeral ci section de recherche bi mbaal ci diwaanu Thiès ñu fa doon yëngu ci wàllu xaalis bu bon yéenekaay bi ne Cheikh Issa Ndiaye ak ñi mu ci lëngaloon xaaju guddi la ñu bàyyikoo ndakaaru àjjuma junu génn wutali diwaanu Thiès ak billet noiru dollar ak euro valeur un milliard waa section de recherche daal di leen infiltré maanaam daal di sërëxal kenn seen biir ñu jàppe ko ab laveur di ko doon setal ne aju luye yi rafetlu nanu ko lool waaye ak naatable nag lanu ci boole ndax borom kër yu ñuy tiit ñu daw gaaw yokkaat luyaas bi nanu ko ni defee woon atum 2014 ndax état bi nga xamante ne di caa boole woon ak ceetaan na ko noonu ak ñàkk topp njiitu réew mi moom président Macky Sall ci Sharm el Cheikh ci Égypte ci laas ci kaw ubbi teg ndaje mi nu fa jagleel luy sawee jaww ji ci àddina ma nga ca naan moom président Sall faw ay jëf ngir sawee àddina bi ci boppam ci Le Soleil moom njiitu réew bu Sénégal di njiitu Union africaine di fàttali réew yi posté ne jaww ne ñooy ñi a fay ma ngay yit la gën a yitteel Afrique ci jóge ci énergie bi posene jaww ji jëm ci bu set bi ak it koppar yi Afrique soxla ngir mën a dékku coppitey climat bi ci l'info président Macky Sall di ci xamal réew yu naat yi ne wartu noo ne ci jamono bi jàpp ne it nag ma nga cee am ak tan ci wàllu woowu ndax jamono yi waa booram nanuy ay aylo Ousmane sonk bañ koo may dara dañuy des ak président Macky Sall directeur général bu AGETIP mi wax ci lu leer ne mooy mbërëm ngir 2024 di lu ñu jàng ci yéenekaay bi di direct news El Hadji Malick Gueye dafa jàpp ne li waral mu waxee ni président Sall dafa liggéeyal lu bari Sénégal ca mu ne faaw ñu gunge ko ngir mu yeggale coppite xarkanamu réew mi mu jógtee observateur mel ni ku naan ko na ca boole régler borub Sénégal bi diis lool ndax yéenekaay bu groupe Futurs Médias dafa jàpp ne diis na lool daanaka wees na rëdd wa yómu waa rëddoon jamono yi fukk ak juróom yu am am di bàyyi ko ci réew mi wàllu lamb la jeexale ginnaaw ñaar fukki ati carrière Papa Sow jël na retraite am sunu lamb ak record ñooy ko xamal moom Papa Sow naan ca dogal la bu mu jëloon nag laata muy sëgg ak Siteu Siteu mi koy xamal ci yéenekaay bi di sunu lamb ne ku am wekk respect gu mat sëkk la ci moom Papa Sow carrière bu riche ni nu ko waxee ak ñaar fukk ak ñetti victoire naka noonu juróom-ñeenti défaite Siteu moom ginnaaw ak Tapha Tine. NCA